xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg euh, seen site bi di Sunugal 24 di wax ne rek wéy leen di abonné euh, saa su ne rek benn information du leen rëcc parce que da ngeen koy am en direct te informer juste et vrai la ñu wax euh, donc ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen sargal di rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak ñun. yéen a ngi ci biir kër Mbaye ak nag ni ñu koy defee saa su ne ñaw xalima moom la ñu wax macha allah fa tabarakallah ma jëli koo xamante ni nag ba ma àndee ak moom yàgg na depuis ci télévision bi ba ci sit bi bàyyiwul benn yoon ndax li ko waral mooy euh, bëgg na ma bëgg na li may def waaye itam liggéeyam daf koy jaarali ci yoon ba nga xam ne du am benn kalaame du am benn rëcc-rëcc ba tax na rek dama koy ñimee dalal ci yar bi ak teggin gi waaye itam ñime koo dalal ci alxuraanul karim ak sunna seydina muhammad si nga xamante ni ci lay dund Euh, noonu lay mën a demee nag euh, sunu Seydina Mohamed moom euh, Mohamed Diop bu ko dee dund mooy tubaab dem na Paris macha allah fa tabaarakallaahu sëñ Mohamed maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Sunugal 24. ngi lay fay nuyoo Soxna Mbaye. Mm-hmm. te di la ziyaare bu baax. Mm-hmm. am mbégte beneen yoon daje ak yow ci émission. Mm-hmm. di wax baada auzu billahi min aseytaani rajim. alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi salallahu alayhi wa radiyallahu an ashaabi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ajmain wala hawla wala quwata illa billahi al aliyul azim ñu ngi lay delloo nuyoo du nuyu mboolem fu nit mën a nekk ci àdduna bi te dañuy bàyyi xel te di seetaan émission bi tey topp site bi di ñaan yàlla lépp luñ fi nar a tey yàlla na nekk njëriñ ñeel askan wi bi xamati mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa macha allah boo fa demee rek boo wootee ci numéro téléphone yi incha allah euh, di 77 437 99 99 77 437 99 99 incha allahu taala di nga ko jot sëriñ Mouhamed macha allah ngay yëngu ci wàllu ñaan waaye nag teg lépp ci alxuraanu karim lu waral loolu. waaw alhamdulilahi rabbil alamin beneen yoon hmm. parce que yàlla moo ñu wax ci alquran ne. man maa wàccee alxuraan mu doon saafara ñeel ñi nga xam ne mooy way gëm yi te amul lu ëpp alxuraan te dinaay wax ne lépp lu nit man di mbuboo ci kaw àdduna alxuraan moo ko féete kaw dangay gis sax dangay dem ba ci nit ñi ñu ne la alxuraan dafa yéex te fexe ne yàlla bindut lu yéex ñàkk xam méthode bi ak ñàkk xam fan nga koy jaaree waaye alxuraan boo ko xamee xam yax bi xam biir gi xam biti gi lépp loo ci bëgg a defal nit rek boo ko defee da nga am résultat bu baax ba tax na ñun suñ mbir yëpp dañ ko tënk ci alquran ak ci sunna ak ci sariatu muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu euh, ci yow da koy seetal wala nga listixaaral euh, waaw fekkee listixaar la moom hmm. benn nit lañ ci jël par jour parce que yàlla wax na ci alquran ne defuma ñaari xel ci benn bopp ba tax na mënoo jël fukki nit nga ne ñëpp mën nga leen a mën a xaaral ci benn guddi nga am ci lu nga bëgg loolu mënta nekk waaye fekkee am ma ci wàlli seet la moom kooku moom bu jat bu timis xasee ba jot moom dootuñ seet waaye bu kii timis xasee ba jot listixaar la ñuy def te xaar bu ñu koy def kenn nit la ñuy jël mm-hmm. Mm-hmm. d'accord euh, seet nga di ko jëflanteeg ay nit léeg sax nga wax ni seetal nit ki ba pare wax ko ne ko génneel sarax sàngam te man xam naa ci lu wér ni nit la koy wax du deñ parce que nee naa leen lu mu ci mënti doon rek man am naa exemple côté ça parce que askan wi yëpp adduna bi yëpp ñoo may woo di ma wax boole ma ak nit wala dem naa ci diw li ma waxoon lii ak lii ak lii euh, euh, fan ngay euh, sukkandiku ci nit ko defee ajam ajam faju waaw xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ci benn hadis na su ma banu toona sonal sama xeet wi. Mhm. kenn ku nekk am nga trois cent soixante cër yoo xam ne mu ngi ci doomu aadama wala ba tey trois cent soixante cinq. Mhm. bu ma sonal bañu toon sonal sama xeet wi kenn ku nekk bu xëyee benn cër boobu dana ko génneel sarax mm-hmm. ñun nag nit bu ñëwee ci ñun njëkk ñi def dara ci ay mbiram mm-hmm. daneen ko lëñbatu xool ko mm-hmm. seet ko parce que alxuraan dafay wax ne bu ngeen di dugg ci kër na ngeen jaaree ci bunt yi nit nag bu ñëwee ne la damaa am jàngoro bii ne la wala damaa nangam damaa nangam nga yëkkati garab rek jox ko ko mën naa am doo ci am résultat bi nga bëgg li tax mu mën laa may résultat mooy da ngay xool ba xam lii lan moo waral jàngoro bi wala lan moo waral lii Mm-hmm. ginnaaw ñu ko xoolee pare dinaay wax ne ci méthode xaar ak méthode seet mm-hmm. yàlla may nañu ci may goo xam ne kenn du wax ne maa fi raw mm-hmm. waaye xam naa ne am nañ ci jagle boo xam ne yàlla may nañu ko te képp koo xam ne dikkee nañu ci rek luñ la ciy wax du du dañ te buñ la ko seetalee ba pare tamit lan lay digal ci sarax boo ko defee bu soobee yàlla lépp loo xam ne dafa nekkoon ci say gàllankoor rek dana dañ parce sarax nag dafa doon lu baax te temps bi mayu ko waaye ñi tënk ci rek comme hadis bi nga xam ne yonent bi daf na maa maa naqasat sadaqat min maali wa ma zaada allahu abduhu afwan illa rafullah mun a sarax du wàññi alalu nit ku ko def lu dut jaam ba ko def yàlla dana ko yëkkati te dana yëkkati ay ay darajam te sarax dana fekk déegoo xam ne dafa waroon a ñëw ci yow nga def sarax nga fekk déegoo mm-hmm. sarax dana fekk fanu nit mm-hmm. sarax dana génnee nit ci ay xat-xat ay situation ba tax na buñ la seetalee ñun di lépp loo xam ne dañ la koo tettal ci sarax mm-hmm. boo ko defee sax mën neen bañ a yëkkati dara jox la ko nga sangoo ko ngir sarax yooyu ubbi say bunt macha allah ci lu jëm ci wàllu ubbeeku googu bala ma cee ñëw ndax euh, dafa doon sa foor ci wàllu ñaan waaye damay jëkki ci wàllu kaaraange kaaraange dafa am solo ci dundu doomu Euh, sëñ Mouhamed Diop yor ci yéeme yéeme yéeme ci wàllu euh, kaaraange googu euh, ndomba la wala jaaro la wala lan la. waaw kaaraange mooy dund doomu aadama. te dinaay wax ne nit mënta dund sans kaaraange. Mm-hmm. yàlla nag may ñi ci ñi am ci yoo xam ne dafa yéeme lool lool mm-hmm. am na ci boo xam ne buñ la koy jox danga nga koy booleeg doomu balu fetal. Mm-hmm. boole kook tobb benn tobb boo xam ne moom lay ànd ak. nga boole kook ay ñax yoo xam ne dafa jóge ci biir armeel ñax yi nag boo koy ut ci armeel yi dafa am melokaan booy mel noonu nga koy utee mhm. boo utee ñax yi ba pare da ngay jël ñax mi nga baxal ko ba mu bax mhm. nga xent ko mu jaar ci teme mhm. nga jël doomu balu fetal bi ak loolu ñu lay jox nga boole ko moom nga sangoo ko boo ko sangoo pare nga jël ñax yi nga delloo ko ci armeel dinaay wax ne bépp nit bu la laal fa nga delloo ñax yi bu la laalee daneen ko fa delloo daneen ko fa dugal moom bu la laalee daneen ko fa delloo am na beneen boo xam ne tamit dañ koy boo rek xandeer xandeer nag bu ñu ko waxee du xandeer yi nga xam ne bañ nekkee jamonoy xale moom lan daan xandeere di ko def déedéet xandeer mooy dëkk boo xam ne dafa dem ba gent tojotindaay yi xam ne nekk foofu dañ koy jël boole koog xeeru teen bu të boole koog dëju sump yoo xam ne dafa sax ci biir armeel boole koog dëju sump yi sax ci biiri armeel ak leneen lam war ànd ak duñ ko tudd jox la ko nga sangoo ko képp koo xam ne daf laa laal ni nga fekkee daf lay xeex ci wàlli alal ni nga xam ne dëkk boobu dafa gent ba nit ñi tasaaroo yàlla dana dem ba tasaare alalam ba dootul am alal jum la xeexee mm-hmm. te képp koo xam ne danga nga koo sangoo timit nit nit nga see teen ba mu të lépp loo xam ne yàlla daf koo bind mii nit mm-hmm. du man ci yaw dara bu mm-hmm. soobee yàlla am na ci beneen boo xam ne tamit mooy bi ànd ak poussé yi te boobu yaakaar naa ne ñu bëri xam ne ko mooy poussé yi nga xam ne danay damm boobu dinaa wax ne képp ku ma ko jox nga sangoo nit ku jug na mu ngi lay liggéey balaa àgg fa mu jëm ay tànkam dana bañ wala yàlla def ko ndog ndog ci yoon bi kaaraange nag képp ku ko amul rek pour nga man a avancer ci kanam day jafe parce que àdduna ñaara am taxaw benn place amut benn da ngay dem ci kanam wala nga dellu ci ginnaaw te kenn ñaanut yàlla tamit dellu ci ginnaaw mm-hmm. te wax ne man sama kaaraange képp ku ma ko jox bu la neexee ren ba déwén bu la neexee mën ngaa bañ a sangooti bépp kaaraange te mm-hmm. képp ku la laal tamit da nga taxaw ci bàmmeelam bu soobee yàlla am na boo xam ne moom ci nga koy sangoo benn fan nga koy sangoo mm-hmm. boo ko sangoo am na ak lenset ak pont ak paaka bu bees ak xalu safara te xeet yi ma liim yëpp amul benn nit bu ko ñemee boo koy sangu da nga koy baxal ba mu baax nga teg cin bi boo ko sangoo ba pare am na melokaan boo war a toogee bu soobee yàlla képp ku la laal te dañ ci boole benn mbott bu dee te képp ku la laal ci waxtu wu nga koy sangoo sax ci tooyaay boobu sa noon bu la gisoon dana faatu ci tooyaay boobu parce que dañ koy wax dañ lay bañ sax ba bu ñu la koy jox nga koy sangoo dañ lay wax ne ko bu ko sangoo sa kër parce que sa jabar mën naa doon sa noonu mm-hmm. te boobaa bu la gisee mën naa faatu boobu moom dinaay wax ne képp kuñ ko jox mbindeef mu la man di laal ci àdduna mm-hmm. balaa dé balaa yàgg danga nga dégg ne yóbbu na dem na barsax jërëjëf yaakaar naa ni loolu leer nañ nañ te dañu toll jamono boo xamante ni jamonoy kaaraange dëgg la nañ ci bàyyi xel sama classe gi nag moom dañuy bëgg di ubbeekoog bayre rek leen aar Euh, macha allah wàllu ubbeeku boobu nga def ci siwo bu doy waar siwo boo xamante ni moom mu ngi toj dëkk bi dama la doon bëgg a wax sax Mouhamed Diop from Gambia. Mm. parce que macha allah euh, say wëllëre yu bari ñu ngi nekk Gambie te euh, wàll wi ngay yëngu rek daanaka moom moo tax d'ailleurs yaa ngi koy waajalaat sax incha allah sunu mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk Gambie. ba tey mën nañu woote ci numéro bi par whatsapp jël rendez-vous ci 77 437 99 99 incha allahu taala dafay nekk Gambie lu baree bari wàllu ubbeeku. boobu nga waaw soo bi dinaa wax ne képp ku ma ko jox. Mm. askan wa nga bokk. <coughs> fekkee dañ la doon dimbale. Mm. bis boo ko jëfandikoo yow yaay dimbale ci askan wa waaye kenn du la dimbale. Mm. te képp koo xam ne da fexe ba am ko ba utiliser ko ci at moom. danga yokk ci zahir da nga yokk ci baatin ci bépp fànn boo xam ne da nga ciy yëngatu. en na dëkk bi wax dëgg yàlla bañ ko liggéeyee bëriwut waaye jeex na tàkk waaye nag alhamdulilah liggéeyaan neen ko. danaay wax ne moom mooy ndimbalu nit ñi moom noonu laa ko tuddee soo bi ndimbalu nit ñi waaw ndimbal la mm-hmm. képp koo xam ne da koo jëfandikoo mm-hmm. bu soobee yàlla moom yokku rek ngay am duñ ci duñ ci xuus bu bëri waaye ku ko jëw ba jëfandikoo ko rek da nga gisal sa bopp bu soobee yàlla mais gars yi des fois dañuy ko waxee boo ko laajee njëg gi bu la ko waxee rek nga waaru mbaa méttiwul waaw xam nga araab yi dañuy wax ne parce que ki soxla kooku am na fu mu dañuy wax ne man araada say an la budda an yafal shay mm-hmm. ku bëgg dara foog nga def dara ku deful dara doo am dara waaye ku ñëw rek danañ ci dimbalante ak yow bu soobee yàlla. incha allah incha allah bu leen ko ragal taxu ko metti noonu te ku am yërmande la macha allah euh, bu ngeen jokkoo ak moom rek di ngeen ci xam dara ba tey itam ma ñëw ci loo xamante ni euh, depuis bi ñu ko ma nekkee ci télé bi man ak yow gis naa ni itam euh, ku ci yàlla may nga te sa lépp dafa nekk cosaan muy wàllu rab rab nga di ko jàpp nga di ci jàppale jaami yàlla yi. waaw rab moom yàlla dimbale nañu ci. Hmm. am na ci cëw di xam ne moom lañ ci liggéey. ak cuuraay bi ak lañ lay jox nga sangoo ko dinaay wax ne képp ku ma ko jox bu rab nekkoon ci yow dana tàqali ko yow nekku na loo xam ne dañ koy calmer mu dem ay weer mu dikkaat déedéet boo ko xasee ba am ba takk ceew di gi la muy ànd ak ñi boole ko defal la ko noonu nga utiliser ko bu soobee yàlla rab bi dana daw waqeet génn ci yow parce que rab dafay mindeef boo xam ne dafay doy waar mm-hmm. da nga gis góor am jabar tëdd jabaram dem ci du duus masturbe boppam ba yëg bànneexam moo koy gën mu tëdd ak mu tëdd ak jabaram da nga gis jigéen toll nu mu war a mel góor gu ñëw dem góor gu ñëw ba wax waxi fula rek rab bi fiir la ba nga dem mm-hmm. nga gis nit koo xam ne dana yor alal léegi wala balaa deux jours trois jours rab bi xiptal ko ba alal ji yëpp dafay dem mm-hmm. jàpp jigéen mu tere koo am doom jàpp góor jàpp nangam ak yooyu yëpp dafay am mm-hmm. waaye képp koo xam ne rab daf la attaqué boo ñëwee ñun danañ la ko saafara te dañ koy dindi yow ba mu set yow bokkul tamit comme comme lu koy nit ñi dindee oo oh, caméra yi caméra la nga yuuxoo gi parce que doomu aadama yàlla daf koo sutural nit bu amee jàngoro ba ñëw ci yow faj ko ci sutura mu tañ ci sutura dem ci sutura mm-hmm. boo ko caméra yi ba nit ñi gis ko ëllëg mu génn ci mbedd mi dox ñu ne kii moo yoroon feebar bi mm-hmm. loolu ba tey tamit mën na koo def euh, ci ci bopp bi dara mm-hmm. ba tax na daal képp koo xam ne da ko boo ñëwee buñ ci jëflante ak yow da nga ci am satisfaction ak cuuraay ak lañ nga sangoo ko nga tàqali ko rab démb loolu lañ ko daan fajee mag ñi macha allah te yoon woowu nga tegu ndax maga la yor te it nag xam-xam bi gëstu nga ko fu wér donc ni ma leen ko waxee rek mi ngi dëkk si Cap Foire ngeen mën ko am ci 77 437 99 99 kii di Serigne Mouhamed Diop macha allah ma yàgg ak moom lool lool lool lool te rëccu ma ko benn yoon ba tey euh, balaa ñuy jeexal ñu ñëw ci wàllu euh, këyit ak samp nit euh, nit ci palaas wala samp ci wàllu nguur loolu itam dafa nekk sa domaine macha allah moom itam waaw alhamdulilahi beneen yoon. samp nit moom ci wàlli nguur ak ci wàlli alal. loolu yàlla may nañu ci lool boo xoolee lu ñu toog ci réew mi sax bëriwut. parce que lu ci ëpp. ay nit a ñuy oo ci biti ñi leen koy defal. boobu ba léegi ngi lay waaw ay nit a ñuy oo boobu ba léegi daanaka jëpp na loolu ba léegi daanaka tooguma damay dem ak a ñëw rek. Mm. te gis nga tamit maa ngi wàcc yoon te yoon wu may wàcc tamit loolu bokk na ci. dëgg la. mu doon loo xam ne yàllaa ñi ci ko jagleel te lépp nag ñi teg ko ci nangoo jàng rek ak xam mm-hmm. parce que dinaay wax ne xam-xam jàng rek koy maye mm-hmm. ndoona mayewu dara mm-hmm. ndoona loo mën a ndoonu mooy kër yu fa sa bàyyi bàyyi ak ay bien waaye xam-xam sukku jàng rek moo koy defee sama maam daf ma daan wax ne jàng leen ndax ngeen def nit ñi ñi ay nit munuma boo jàngu nit dana wax nga yaakaar ne dafay fane fanaani xaras mm-hmm. te mu ne boo jàngee rek gis lu muy wax ne mu ngi ci téere yi mm-hmm. ba tax na képp koo xam ne loolu mooy sa yitte pour samp la ci wàlli nguur wala samp la ci wàllu alal wala samp la ci wàllu société mm-hmm. boo ñëwee yàlla may nañ ci ci méthode boo xam ne buñ ci jaar ak yow ala foog danga doon nit ci wàllu nguur te danga nga ci am li nga bëgg ci wàlli société ak ci wàllu alal bu soobee yàlla am na solo am na solo macha allah looloo tax lu toog euh, ci dëkk bi dafay génn ci sous-région bi ci dëkki Afrique yi rawatina diwaanu Gambie ñam nañu loxoom macha allah am na yar am na teggin euh, te it nag boo ko woowee téléphone ci numéro yi mu yomb jot lool boo ko jotee di nga xam ne li ma lay wax euh, lu dëggu la. te it nag euh, man nit bu yaroo rek euh, ma mën a bokk ak moom lépp donc 77 la 437 99 99 mu ngi dëkk fii euh, ci Sicap Foire Serigne Mohamed joob sëñ Mohamed lan ngay tàggoog mbokk yi internet yi te xam naa ne doyaluñ ci yow am na xeetu jàngoro yoo xamante ni yaa ngi ci dimbali jaam yi itam mu mel ni hémorroïde mu mel ni néew kattan mu mel ni ndoxum siti waaye itam am na ci loo xamante ni itam duggoo ci détail boobu mais am na ku ma yónneel yéen firndeel mbir mi muy wàllu nopp. waaw ah. diggante diggante bu yàqu. yaay ak doom jëkkër ak jabar directeur ak patron nga nga yor ci bu yéeme boo xamante ni ah, na nga koy defee rek di teen ci asamaan si rek war naa mën a eh, dalal xel ne jàmm dina am. waaw nopp moom képp kuñ ko defal li nga bëgg da ko am. Mm. képp koo xam ne danga nga maa dikkee ci mbaali nopp. Mm. li nga bëgg ci wàllu nopp boobu da nga ko am incha allah. ci wàlli jàngoro yi nga wax tamit siti la ak new kattan ak hémorroïdes yooyu yëpp dañ koy traité bam dañ ci nit mm-hmm. wàlli kayit tamit képp koo xam ne sa jafe-jafe la ci Europe mm-hmm. booñ ci dikkalee lañ ko daan liggéey du soppeeku journal ba gën ci dëkk ak la mu ànd ak bu doon juróomi nit bu soobee yàlla yàlla dana la may kayit bu soobee yàlla journal ba gën a gën a siiw dëkk ba mm-hmm. boo ko mënta yónnee tee ko su ma paree lu ma lay yónnee dinaa la wax noo koy defee fekkee loolu rek mooy sa jafe-jafe bu doon juróomi nit la ñu tànn di ko may danga bokk ci juróomi nit yooyu bu soobee yàlla xam-xam macha allah man dama doon wax nopp gi sax euh, jubale yaay ak doom euh, mu yor ci doy waar yoo xamante ni macha allah te nit ñaa ngi bitim réew seen doom yaa ngi tàggalikoo ak ñoom di toog ay nangami at ñu tudd seen yaay duñ tudd seen papa duñu ñu bëgg xamanteek ñoom sax euh, te macha allah yàlla may ko ci lool lool lool lool sëñ Mouhamed lan ngay tàggoog ñoom waaw ah, tàggatoo bi di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal tawfiq te mbas mi nekk ci àdduna bi yàlla na ko fi yàlla jëlee te yàlla yàlla jàpp suñ loxo awala ñi ca yoon moom bëgg ak yoon moom gërëm mm-hmm. suñ doom yi nekk ci bitti mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla leen yàlla defal sutura sutura goo xam ne danañ ci mën a teral seen waajur yi ak képp ku leen yaakaar mm-hmm. wa ma zalika ala allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah cant ak ngërëm ñeel euh, Serigne Mohamed bi ñu àndaloon tey ci kër Mbayang ci Sunugal 24 waaye ci sant ak ngërëm itam ñeel sama équipe technique bi nga xamante ni macha allah euh, bu ma defee jongama piir rek ñoom ñoo fa jaar euh, di Dóor waar ma koy nuyu bu baax a baax di ko ziar ca son bu baax ba jaajëfal ki nga xamante ni mooy son stagiaire Mansour Dramé jaajëfal ñi nga xamante ne mbokki internet yi la àndoon nañu ak ñun di ñu seetaan rendez-vous très prochainement incha allah ci beneen numéro ci beneen gan ci biir kër Mbayang asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanillah jaa ngeen jëf